waajal nag day bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuuba la mooy màggalu Tuuba di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko am muy bis bu rëy ñu Serigne Touba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bi yàlla def nag ci ñaanam nga ak liggéey bu tëdd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak pay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe yëpp nag seenu xeet tax màggal gi àgg fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy li ëpp solo te mooy li ko tax a jóg di wàllu ruux lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg ak yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg ak Sëriñ ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma la réew mi waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna ma ne soo ko jaay bare muy dugal lu bare bare itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew mépp la jëriñ kon li ñuy tudd tey relancement économique Màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag bu ñu amee lu ñu bëgg a jaay dañ koy xaare màggal bi ngir barkeelu bis kon nag yàlla def Serigne Mouhamadou Mountakha duñ ci sañ a seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taari bi itam du laaj ndigal day toog ba jox ko kon ñun li war mooy toog di xaar ndigalu sëriñ bi bu sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyal liggéeyu mag liggéeyu mag li ngeen ko daa def ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiite ni mu ko baaxoo defee te ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séntu ci it lañ ci daa séntu te ji itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifaam yi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxawal ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di nuyu di rafetlu jotaay bi itam ñu doxe di ñaan itam ñu àgg ca màgg jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñu ragal yàlla mosuñu te suñu xel war ca dal bu baax a baax war a dal xel yi mooy eh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci eh, pëstéef ak ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngir xam ne sëriñ bi kat lépp loo ko sëf te defe ko pëstéef ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñu ñaan ñu àgg ca te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mi nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gii bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoon teg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ñu ñi bokk réew mi nekk ci biir adduna yi seq ko waa adduna kon mënuñoo bett ko ni ko bu mu taxaa di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daa lañ ko def te xam ne mën naa jur fitne wala ay jàngoor di ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def ren ji yàlla def na ngir xam fi adduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi visio conférence nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñi nekk Arabie Saoudite ñi nekk ñu ñi nekk euh, Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence noonu lañ ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk di ko dund ba mel ne ni ñu ko daa defee ndax màggal gi itam xam nañ fi jamono toll waaye nag waruñ ca àgg itam te dañ ca daa jariñoo di manqué ndax yaar yëpp mën na mënees na ko sàmmante kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne na ko kilifa bu njëkk yaa daa defe rek ca tànk yooyu jaar moom bi wéradi gi xewee la Serigne Touba waxoon ca peste ba la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla mi ko fa wàcce waxtu bu ko jeexale mu jeex kon képp ku gëm yàlla yëpp dangaa war a tënku ci loolu xam ne suñu boroom moo ko doxale noonu ndax moom bi u fa wàcce moo xam ne tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax la ko ca war itam la ci jëkk mooy ñaan loolu itam def na ko waxtu wu nekk mag ca di ko santaane yëpp ndax ab euh, ab jullit addu'a silaaxul mu'min ginnaaw ba loolu jàll itam li nga xam ne adduna da ko indi santaane ko ndax ne ko sëriñ bi waxee rek wa laa tulquu bi aydiikum ilaa tahlukati loolu lislaam moo ko santaane kon ab jullitu xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu dëppook sariya mu wër ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diggam te du yàq mbirum àdduna waaye nag suñ digg ak suñ borom moom mooy jiitu ndax loolu tax yàlla wàcc ñu fi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu ko adduna bi itam suñu borom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diin indi kilifa adduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko waa adduna ñëpp maase loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ci ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe loolu yëmu ca ndax yëmu ci wax kese waaye da ko booleeg ay jëf jëf ji mooy ba wér di gi tàmbale yëkkati lam ci man ngir xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen njiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew mi ngir xam ne la Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacké daa wax ne doom bu sax ci sot la bokk loolu ci biir ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñëpp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu borom jële ko fi yëmu ci itam tàmbalee ko ci Touba mboolem lu ko waroon ci ay ndimbal ci dëkk bi li ko wër yëpp mu yëkkati alali boppam tasaare ko séddale ko ba sant ko taalibe Sëriñ Touba yi ak daayira yëpp ak seex si ñëpp marse ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbalee ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu llah kon nag ko xam responsabilité kon lépp lu ko waroon ci wér ngeen itam ba nëgëni lépp itam gis ngeen ba nëgëni santaane bu ñu julli nañu soriante ak mboolem jàkke yi nga xam ne aju moom kon moom pour que ëpp ci réew mi néew fi kon bu sañoon taalibe yi ak jullit yi ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér. ba sooy ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér mooy jàmm moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci adduna si kon Cheikh Mawlud Moutakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu wu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo xam ne mën na indi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamee noonu yëmu ci ndax. dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ci mu jëf ñëpp gis ndax ku ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque di ko takk lépp li mu ci julu mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexe ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñu kilifa moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sant ñëpp képp koo xam ne mën ngaa jël masque bi di ko takk ñi nga xam ne nag xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaalaat di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mu ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkiteel bi nga xam ne Euh, xam ne màggal gi bu sañoon ñëpp dañ fi indaale ak te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér topp leen kon loolu tam li nga xam ne euh, médecins yi ak docteurs yi santaane ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa daayira mu xaddamatu xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen ne mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa seere ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas nañ yéene tërale ko noo xam ne ñëpp danañ siyaare te danañ sàmmante li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññe yi nga xam ne ndax màggal gi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd noonu waaye rek ñu ngi rafet njort rek ci ne bu màggal yi jàllee rek. suñ boroom mën na fee doxe lépp tàggoo fi dem ba kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaaneem di sant nag président Macky Sall ci cant gi ndigalu Cheikh Mahamadou Mountakha démb la ma waxaat ne naa ko jot li cant cant gi li ko waral mooy bi màggal tubaab gi jàllee daaw ba ba gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi damay yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne déwéwaat ba ca des mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci biir nawet mbeddi Tuubaa bari na ci loxoom day tax bi defoon na ci fukki milliards. waaye Touba dafa rëy la koy defal assainissement dana téeméer bi milliard wala mu ëpp kon da ngay tàmbalee fenn di dem sëriñ bi yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yi te waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yitte yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doole suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji rek moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am li ñuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi ndax li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def itit xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mu neex mën fi ñëw ak ndox mi bañ a màggati loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy ba bañ jox liggéey bi ci weer septembre bi dina tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pëseef def ci taxawaay kon sëriñ bi ko ci sant bu gërëm ba ca des it mooy wàllu assainissement bi assainissement itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa saasa it la jox ministère bi ko war digal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël bisab yoon 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bi jëm ci foos yi ñu doon wax ca waaye bii ci wàllu taw bi la jëm yàlla def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yeexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sëpp la loolu itam ñu waaye incha allah bu màggal gi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jublu ngir àggali liggéey boobu te loolu itam bu àggee daa doon loo daa doon ndimbal loolu nag bokkut ak tëli yeeg yeneen yi ak làmp yi nga xam ne Sénégal gépp loo ko def waaye beral na ci Touba wóorul ñaari milliard loolu itam sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko jigéen ndox mi itam def na ci ñaari milliard ak ñaar ak téeméer million kon loolu jéego bu rëy leer kon sëriñ bi koy sant bu baax di ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa ne du ma sant ku ma deful dara kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis naa mu ci dëkk bi ndajaam xam na ne bu waxee moom mu dégg ko te lu mu ca mën dana ko jëlef moo tax lu ci xam ne manqué na wala war na ko def sëriñ bi dana ko ko bu ko waxee itam fa sansa la mu ca mën ko ndax man ñi ne ci diggante bi xam naa ci dara kon ñu ngi sant ñëpp diggante ñëpp di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la ñu àgg ci ak génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd daloo xel ànd ci rafet jort ngir xam ne sëñ Tuubaa kat euh, mbiram suñ borom feggal ne ko ci aafatu ak kaddu kon suñu xel war na ca dal yaqin sax lañ ci war a am wasalaamaaleykum